daan na ndeysaan woon fee ca stade Diop Iba Mar Diop ndeysaan góor gi étudiant moo fa daan li nga xamante ne mooy awaay ah, ji rek ay waay làmb rek kay làmb boo duggee ci sa làmb ji sa xel dem waaye góor gi étudiant am na fa ndam bu woon foofu rek fa la ñuy abonné moo tax bu ñu abonné moomatoo sa bopp ñoo la moom saa yu làmb xewlee da ngaa war a dem lu ñu soxla ci information làmb da nga leen koo war a jox loolu moo tax ñu ngi fépp fépp lañ bëgg a nekk ngir bégal ñi nga xam ne Papa Gueye Mouma arbitre waat na l'an 2000 ak ki nga xamante mooy Mamady Ndiaye dégg ngeen arbitre bi na noonu ñu ngi ci compétition bi ba tey ndeysaan l'an l'an 2000 pakala bumbu l'an 2000 ndaysaan ma nga noonu nga gis fële ca wàlla général Malika mu ngi nele di waaj a sëgg sama côté gauche ndaysaan moo ne nele ci wetu Adama moom général bu Malika compétition bi passé adresse Senghor moo ko jël tey mu ñëwaat bokk ci course bi loolu moo lay wanal ni compétition bi bi mu amee ba léegi amul chance jël waaye gis nga jël na compétition bi mbokk gis ngeen Papa Gueye Muuma am na ku mu jàpp fee ma ngay jongale caxabal na ko Papa Gueye Muuma ndeysaan ña ngay woo seex Cheikh Tidiane ñaa ak ma jabel fay cey làmb ñëw leen ci digg géew bi xeexu góor la kaa leen mbëkkante ndeysaan mu may damm saan ndeysaan Mamady Ndiaye ak l'an 2000 ba tey ñu ngi ci diggi géew bi wet gee ngeen am fa général Malika ndeysaan Yaxya Joob Yékini dugg si na sëñ Basiru ma nga ne sol yére bu beige ndaysaan Yaxya Joob Yékini le grand champion ndaysaan moom moom rek mooy waaj ci février bi dina ñëw ak mise bu 3 millions foofee ca Mbour donc loolu aussi lu am solo la ci lutte sans frappe bi ndaysaan kooko Yaxya Joob mbokk yi ba tey ñu ngi ci combat en 2000 ak Mamady Ndiaye l'an 2000 on koy fàqat Mamady Ndiaye bañ na l'an 2000 Mamady Ndiaye ndeysaan Mamady Ndiaye l'an 2000 ñaari mbëru simple la dañoo xamante dañoo xamante. ndeysaan général Malika ngi jalgandalu di biiju làmba ngi noonu ndeysaan ba tey bi ci diggante Mamady Ndiaye ak l'an 2000 Mamady Ndiaye l'an 2000 ñoom ñaar dama ragal arbitre moo leen nar ndeysaan Mamady Ndiaye ak Pakala wala Mamady Ndiaye ak Alan 2000 ñu ngi ci géew ba tey ndeysaan ña ngay léetoo ba tey Mamadou Ndiaye ak an 2000 l'an 2000 Mamadou Ndiaye jël na tànk ba mbaa du ko buddi l'an 2000 bañ na arbitre bi àtte na avertissement ndeysaan la ndeysaan Cheikh moo nekk noonu ci diggi géew bi ndeysaan Cheikh Tidiane ku ne xam na ko ci bëre simple yàgg naa bëre ci compétition yi di jël ndeysaan moom Cheikh Tidiane Niang ndeysaan Cheikh Tidiane Niang arbitre bi sifflé na mbokk yi Cheikh Tidiane Niang moo leen ndeysaan mu ngi noonu di leetoo Cheikh Tidiane gàdd na ko di way Cheikh Tidiane ñaa ndeysaan jël na tànk ba Cheikh Tidiane daan na ko <laughs> nee na ponkal yi la soxla nee na ponkal yi la soxla stade ba yuuxu nañ nee na ponkal na ñëpp nee na ñëpp ponkal yi la soxla nee na Cheikh Tidiane ma ngay dimbali nee ñëpp Cheikh Tidiane Niang nee na ñëpp day lamb xale la ndeysaan cey Cheikh ma nga noonu matt na Cheikh Tidiane Niang la wallahi ku ko gis nii mu toll nga xeeb ko matul matul cent cinquante kilos waaye ñi mat cent cinquante kilos xoolu leen kum ci jàpp nga xam ne champion la nekk làmb damaa nekk làmb photo choc bi kese ndeysaan ndeysaan jëlal peer coach ba ñëw daan ko ñu ñibbi la ko wax <laughs> cey làmb dégg ko entraîneur ba wax peer Serigne Ndiaye mu ne waaw mu ko daan ko ñu ñibbi Serigne ba ba tey ñu ngi ci compétition bi mbokk yi jox nañ ko benn lapp taake sotti nañ ko ndox cey làmb làmb njëkkante la ganjël la gisement moo sele Serigne Ndiaye jàpp na mbaadina gaaw wala déet jël nañ tànk Serigne Ndiaye mbot na ko mbaa daan déedéet daan na ko Serigne mbot na ko daan na ko <laughs> luur la waaye champion buy mbot la billahi ndeysaan père lam ko waxoon la def daan ko ñu ñibbi compétition bi pakala bu mbuur mu ngi noonu mbokk yi wan leen ginnaaw moom lañ takk noonu ma ngay déclencher mbot ma ngay déclencher mbot pakala bu mbuur lu mu bëgg deuxième pied wala da koy mbot mba da koy kal kalub biti mbaa kalub kaw zongale na ko pakala mbotal waaw waaw da koy mbot da koy mbot boo jàppee may ko mu jàpp lu mu gën di jege nga gën a am possibilité pour mbot ko moo tax maa bég moom waaw Serigne Bass maa kontaan ci yaa ngi ci combat Sélérmé ak Gora Sock sëñ Basiru borom dégg beeg bi mbokk wasaare làmb lépp ngeen bëgg am ko fii ngeen koy amee mbokk yi tey bu promoteur tëggee làmb ne site internet bu dugg di nga fay cinquante mille franc mbokk yi ci wasaare làmb dong ngeen ko mën a amee wax dëgg wolof nee na suuf bu sutantee des koo jal ñuy kontaan ci safoo gi ngeen ñu safoo ak ànd bu rafet mi ngeen di ànd ak ñun bëgg nañ ci yéen rawatina waa diaspora bëgg nañ ci yéen waa Brésil buñ leen fàtte zës mu foofu ñu koy teg ci loxoom mu nuyu ñu ñëpp ndaysaan Espagne Babacar a ngi fa. ma koy teg ci loxoom mu tegal ma ko ci loxoy waa Espagne gépp Italie Pape Modou Fall ñu fa ñu teg ko ci loxoom mu tegal ñu ko ci loxoy waa Italie yëpp France Youssou Koulibaly ngi fa ñu teg ko ci loxoom mu tegal ñu ko ci loxoy waa France yëpp ndeysaan ñu ngi ci compétition bi ba tey sëñ Bas Goro Sock trois avertissements disqualifié nañ ko.